Ben magazine bu euh, Africa Intelligence mm-hmm. dafa wax né euh, danaka milliards 198 millions 500 milliards de francs marché def en toute confidentialité entre les autorités sénégalaises compétentes et une société de distribution de matériel médical qui Conception Distribution ACD mm-hmm. un marché de gré à gré gré à gré euh, li ñuy laaj ci mooy sa xalaat nan nga yëgee xibaar boobu ak boo ko yëgee lan moo ci sa gis-gis. est que société boobu xool ngeen euh, xool ngeen euh, ay papiers. Mm-hmm. est-ce que dañu ko créer spécialement pour ça wala société bu doon existe la. Mm-hmm. yàgg naa ci médical bi de société bu mosuma dégg trop loolu leen li may fàttali nag mooy li xewoon ci pétrole bi ci Tunis bi ñu amee seen soxla bëgg jël quelques milliards ñu créer société bi. dem valider ko ay Taïwan ay machin ba ba ñoo convaincre euh, Sénégalais yi Aliou Ndiaye sax taxoon ci bu baax la société boobu existé na bu yàgg d'après ces renseignements ben ñu def li ñu doon def ba milliards yi dem ñuy soog xamné xam ne ñuy soog a xam dëkk bi est-ce que du loolu mu la ñuy répéter est-ce que l'histoire ne se répète pas parce que li ma lay wax mooy c'est sur les budgets boo kese c'est bi am ñu ne docteur Niang moo recevoir euh, les 700 milliards du Sénégal de son budget de 2023. du ma am jàmm. samay am di jàmm yëpp dañuy ñëw docteur yaa yor budget bi man bëgg naa yor suuf si man bëgg naa yor tali bi man bëgg naa yor médicament yi lobby yi commencé organisé personne personnes yi ngay wax <laughs> commencé génn muy partout donc ñëpp ñi nga xam ne dañu participer woon ci politique aussi gouvernement bi parce que gouvernement tam balaa ñu koy teg en place xam nga day def ay diig wooteel ma nga wooteel ma ba mu wootelee ba pare naa la dimbali ci lii

ah hein? pétrole boobu ñu doon waxtaan pour ñu def ko ay faveur est ce que amul lu mu waroon a joxe en contrepartie. Hmm? Mm-hmm. Hmm, comme li daloon euh, monsieur Sall bi mu nekk ci pétrole bi ñu ne ko signé pétrole bi total xaw ma France mu bañ ko signé hmm? euh, monsieur Thion euh, ancien ministre ñëw signé ko bon boobu total tamit lu mu discuté woon ak Sénégal ba mu war a am ay contrepartie. Mm-hmm. comprends ne ñuy signé loolu peut-être Sall l'ancien ministre du pétrole la xamul woon ne. y a des contreparties dañu koy wax ne signé rek sa yoon nekku ci signé mu ne du signé premier ministre mujjee ko signé mais total bi muy am eh, bi muy am contrat boobu xam nga dafa am lu mu war a mu ànd donc mu ne mu noonu mooy mooy l'histoire se répète mais bu ñuy ban bu lii euh, euh, waxtaan bi nag bëgguma ci dugg sax parce que euh, yéen may tooñ quoi dama def lu ma naqari yéen a ay xam nga lu tax. <laughs> parce que ngeen ngeen milliards. mais milliards yu

dañoo waroon tabax hôpital li ci xamante ne moo ci xaw a doy waar foofu ca Bakel ak benn centre de diagnostic et d'imagerie médicale boo xamante ne dañuy renforcer le centre hospitalier à Fatick ba pare ak des services moderniser des services d'imagerie médicale ci yenn hôpital yi looloo tax ñuy ñuy laajte. conception théorique ah Un hein, plan plan de plan de plan plan ni koy wax sax plan bancaire xam nga plan ñu koy wax sax plan bancaire xam nga avec des centaines d'ambulances. Nous voilà, des des d'ambulances. Il y a des projets les yooyu nous avons projets nous le mhm. terre bi euh, projet est ce que est rek donc vous avez déjà ne anguille roche. Ce n'est pas anguille sous roche c'est que dañ ko c'est que chaque projet devient un moyen pour des gens de s'enrichir ah bon. ah c'est il mais pour le bon projet il ñu a def 1000 euh, milliards il y a un mu 1000 milliards 1000 milliards yooyu sax est ce que 1000 milliards dañuy dugg fi

ñu jox ko ci trente cinq mille trente mille lañ ko jox mu signé benn reçu de sept mille. ah bon pour monter benn série. <laughs> fii ci réew mi. mais mën nga ñu ci. non pour te dire rek l'exemple que sa kooku dafa nekk ci te ni nga ma bañ bañ nii man ñetti assurance yóbbu naa leen tribunal. ah lu nga loo jotee assurance yi assurance yi ñuy liggéey c'est la même chose dañ di indi malade nga faj leen ba pare ñu jox la benn këyit mais pour nga jot sa xaalis. Et ci pourcentage la Donc donc de ci. donc c'est tax euh, dafa ADN est-ce que ci monde bi la ci Sénégal la mais corruption ak chantage ak euh, lekku le, ak euh, de de.